mu mel ne ñuy taxaw ak Abdoulaye Lo tey bu ñu nee diaspora bi ñu ngi ci 61 pays liggéey boobu yombuloon parce que d'après information yi ñu am Gambie mooy réew mi njëkk a am groupe bu génn Sénégal te wax nañu ne loolu bi muy am démarche bi bokk nga ci ñi ko taxawoon ban stratégie ngeen utiliser pour ngeen mën a réussir tey 61 pays nekk si diaspora bi tey bokk ci biir Touba ci kanam si biir di wax na sëñ Mbaye euh, man li ma yàgg wax mooy mbirum sëriñ Touba bërigo ci mbaridal la ndax euh, euh, bi nga xamee ne sëñ Touba def na 2016 mois de juin ñu waxtaan waxtaan waxtaan ba dem ba def assemblée général premier bureau bi njëkk a fal dama créer groupe whatsapp boobu muy diaspora relation extérieure jamono yooyu ñu créer ko toog nañ ay weer kenn waxu ci. mais sëñ Tuubaa def nag man ma am benn programme boo xam ne dama ko doon doxal bitim réew bëri ñoo xam ne damay déggante ñoom ci bitim réew ni ma doon def mooy dañu créé woon benn panel rek boo xam ne képp ku ñu xam rek dañ la ci dugal buñ la ci dugalee wax la tubaa ci kanam bu buñ la waxee tubaa ci kanam rek dañ naan la fexeel ba wut juróomi nit ñu nekk ci dëkk boobu ngeen ànd def bureau bu ko defee kenn jiitu bu ko defee liggéey bi dem ci noonu la maanaam stratégie diaspora bi. démarré sëñ Tuubaa def ci tawféex ba ñu nu ko dàq foofu nag ñëw ñu mel na yéen ñi ñëw ba na xam ne tey jii ndax booba jamono yooyu ñu ngi ci ay vingt dëkk tey jii ñu ngi ci 61 dëkk kon ça veut dire liggéey bu am solo lañ ci liggéey euh, boo xoolee tamit diaspora bi Sëriñ Tuubaa la ñu gëm ndax foo dem ci Europe Amérique Brésil Brésil man dem naa fa maa fa njëkk fekk sëñ ceex Ndiaye xamal ko liggéey bi fekk fa soxna Ami moom ndaw Ngom fekk ko Rio de Janeiro mais dangay gis ne dëkk lu mu tuuti tuuti am na kër Serigne Touba am na daayira Serigne Touba te lépp luñ bëgg tamit mooy Touba mais jëm ca kanam loolu dafa nekkoon xalaat boo xam ne euh, daa mel ne murit bu ne yow da ko doon bàyyi xel te xamu foo koy jaar euh, kon man jàpp naa ne kon diaspora bi bu réussite am euh, dañ ci participer Euh, murid yëpp nag mu dugg seen xol mu nekk bërëngo ci matal léegi nag def nañ stratégie ba ñëpp dugg nañ ci liggéey bi liggéey bi àgg na fépp kon nag léegi stratégie bi ñuy desee mooy li ne woon dañuy fexe ba un million murid yi di juge si diaspora bi kon loolu maa nañ koy bàyyee <laughs> gis nañu ne léegi diaspora bi créé nañu ko mooy ne fexe nañ ba am réew yu ne ci diaspora bi mais dañuy dégg ñuy wax naan les quatre continents sous commission bu Afrique ñu ne sëñ Xadim Thiam moo ko jiitee sous commission bu Europe Baye Serigne Gueye bu États-Unis sëñ Sonia bu Seck bu euh, Australie ñu ne sëñ Amady tey boo ñu bëggoon expliquer euh, li nga xam ne mooy sous commission bu Europe bi nga nekk tey euh, parce que gis nañu résultat yi nga xam ne mi ngi wàcc ci versement yi gis nañu résultat yi nga xam ne am na ci effectif membre Touba ci kanam yi ban stratégie yow ngay def ci Europe ba mu may la tey nga mën a am tant de pays yoo xam ne bokk nañ ci liggéey bi mais ngeen am nasu gu toog mel ni am na doxalin booy def xamuñu ban la mais bëggoon nañ nga leeral ñu yow ban stratégie nga def tey ba Europe mën a tënku tënku gi mu tënku nosu nosu gi mu nosu ba bëri ki dem rek relation ñu dégg ngeen di wax ne am nga yéeney réew bu nekk jéem a fexe ba am bureau. tënk mbooloom door a mën a génn pour liggéey ci yan stratégie ngeen am ak ban liggéey ngeen liggéey ci wàllu Europe ngir lu mën a am. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim sëñ Mbaye ñu ngi lay ziare di ziare waaj diaspora bi yëpp ci turu Serigne bu so di ziare suñu jigéen bi nga xam ne tey la ñuy door a gisee xamu woon sax ne mooy soxna Astou Awath ñu ngi lay ziar bu baax kon sëñ Mbaye ñu ngi lay ziar di wax ne lii mooy Touba ca kanam Touba ca kanam kilifa yi ñu ngi koy faral di wax mbir la moo xam ne liggéey Sëñ Tuubaa la liggéey Sëñ Tuubaa bërigo la ci mbartal dangay teg sa loxo rek muy dem ngay yërëkat yi nag say mbagg defe ne yow la te fekk doo ci dara liggéey Sëñ Tuubaa moo mel noonu sëñ Abdoulaye loo ñëw na wax dégg nga fi mu jaar daanaka mel na ni moom lépp rek na jàpp ne moom la ndax ginnaaw yàlla ki sos ku ñëw rek sof ca da ko war a sante lool bu dee système wala stratégie bu Europe weesuwul lu dul réew bu nekk ñi fexe ba organiser ko njiit benn lay doon te kilifa du tuuti képp koo xam ne dafa jiite ab réew réew boobu fexeel ba ñi tënk ko ci moom ci misaal Europe man képp koo xam ne dangay ngay ab membre wala sax nga bokk ci liggéey bi contacté ma li may njëkk a def mooy ban réew nga bokk soo ma waxee réew mi nga bokk dama lay delloo ca kilifa googa ndax kilifa du tuut su boobaa nag su fekkee ne la nga soxla xaj na kilifa googu sax am na ci tuuti lottu ndax léeg-léeg mu dal ma ñi soxla ci man lu ma lot damay dem sama kilifa waaye su boobaa kooka dama koy wan ne lii dama la koy cërale yow mii kilifa gi nga cërale ko jëwrin boobu nga xam ne daa am lu mu soxla woon te bëggoon a ñëw ci man di sàkku it ka nga xam ne mooy suñu aboo ki nga xam ne dafa nekk jëwrin ci ab réew bala ñu àgg ci sëñ aboo mi jiite diaspora bi yëpp mu ñëw ci ñun ndongo yi buñ tëlee ñu dem ca kilifa ga bu ko fee noonu buñ ko jokk jolaatee sëñ Abo léeg-léeg mu am loo xam ne xaj na moom mi jiite commission relation extérieure dina ci am jafe-jafe kon lan lay def day dellu moom ci kilifa yu mag ya ñu jox ko loola mu ñëw ci suuf système boobu nag wax dëgg yàlla ci ñaari at yi ñun foofu la ñuy liggéeyee li tax mooy kuy liggéey ku nekk sëñ Tuubaa ngay liggéeyal ñëpp sëñ Tuubaa lañ mais ku sañoon def lu rafet sa mbokk taalu bi ne la waaw kumba wala waaw góor te nit ki boo ko bàyyee ak li muy liggéey ba mu yëg ne moom wax dëgg yàlla mi ngi liggéey Sëñ Tuubaa te ngi ci gis boppam day gën a sawar day dem ba tëdd néegam di xalaat man bu subaa fan laa war a jaar ba réew mi gën a dox waaye su fekkee ne man damaa ñëw wan leen ne léegi kat Europe bi maa ko jiite bu fi kenn wax bu fi kenn def te tàgguwoo ma day dal di ne ah kon nañ ko bàyyee bàyyi Sëñ Géey kon mbir mi du ñun stratégie boobu la ñu yor mooy dooleel pour jiite benn gox coordinateurs yi damay ñaan région yi nga xam ne ay collecteurs ak coordinateurs dañ faa nekk ñu dooleel ñoo ñax bu ko defee day wàcc ba ci ki ci mujj bu ko defee loolu bu amee rek dañuy nosu buñ paree li diaspora bi rëy rëy ñu nangu am kilifa mu doon benn kilifa du tuuti. muy sëñ Awa Bousso. moom tamit li mbir mi rëy rëy bu noppee. day daal di tënk moom ci kenn. gis nga loolu bu ñu ko defee day mel ni garab. dafa am ay car. am ab daat am ay banqaas. li banqaas yi bëri bëri bëri. bu ñu wàccee rek benn daat moo leen di téye. su ñu defee noonu ñun ñëpp dinañ liggéey. te kenn ku nekk li ñu xool asamaan jërte bu xante ñun ñëpp danañ liggéey ci harmonie boo xam ne ku nekk day sopp sa moroom te dañuy xam ne lii moo tudd Touba ci kanam ndax Touba ci kanam système la du nit. Serigne Gueye benn waay rek la benn ndongo la dafay jaar tey rek. Euh, arab yi dañoo wax ne fa maa qada ahadun minha lubanatahu wa man taha arabun ila ila arabin man ngaa gis nit ki àdduna du jeex bala ngay pare ci benn soxla beneen aksi waaye waka in tara min saamitin moo mujibin siyaadatu euh, aw naqsu fi takallumi lisaanul fata nas nisfun wa nisfun faadu falam yabqa illa suratillahi min wa dami maanaam suñu bëggee ñun di liggéey nañu am ouverture ndax ouverture mooy tax nga gis soxna asuwaaj mi mu taxaw nga déglu ko xam ne ah kii kat am na lu mu toogaale nañ ko xëcc boole ko ci mbir mi mm-hmm. waaye su ma bëggee yëkkati mbagg mbir mi itam kon maa ngi jégglu